dafa daldi ñaawal kanamam mer lool daldi wax nag ne ko yow daal danga bëgg a kaf te man duma kaf akub dof man dofuma bay kaf ak yow dof bile dama bëgg nga teg fee kaf gi te rek li ma la wax dëgg la ci man ñu daldi dàqi ba xam maag yow ku ci dàq daw te man sax nangu na ma teganteeg yow maanaam kenn ku ne topp bi aw sas woo xam ne bu la sa moroom rawee nga jox ko ko mu ne ko yow yaay seet loo bëgg rek ma tegal la ko ma tegal la ko lëg jekki-jekki wadd ñaari wadd yu am doole di ko wan ne ko dangaa dof rek kon doo wax a dàq ak man ba noppi ne ko nag man day duma jekki di tegante yow naa la nan teg nangam nan teg nangam ko raw ci maag yow jël déedéet man kay dama lay wax ne la loo bëgg rek ma tegal la ko ba noppi nag dàqe yow te soo ma rawee rek lu ma la mën tegal loolu wax daal ne ma tegal ma ko lu mu rëy rëy rëy mën naa la koo tegal te it boo ma rawee ma jox la ko léegi kay dalal di gaaw rek lu dàqe te it dàqe bi muy course bi na tàmbalee ci fii nu nekk ba ci garabu balloot gële waqafat taxaw na almutabaariyataani ñaari way rawante ña fil makaani ca place ba almuayyani ba di buñ ràññeel wan talaqataa te ñu départ ñoom ñaar taaduwaani di daw fama in xataxat dogut asulax faatu bonaat xamsata am taarin juróomi meetar xataa kaanat ba nekk al arna bu lëgg xadd sabaqat xaa di ko rawe bi ni aatil am taari ci ay téeméeri téeméeri meetar wa indamal tafatat ba nga xamee nag geesu na moom lëg waraa axaa ci gannaawam walam taraxaa te gisul bonaat xasët mu daal di gësam rësaha boppam waxaala te mu daal di wax ne yàlla ki ca yow min rawiyatin ci aj réer aj dofe faxalaya war na ma an astariha ma noppalu fi haadal marji ci bile béréb bu naat alxasiiri bi aj naat wa akula te may lekk maa la nga xam ne ladda neex na wa taaba te mu teey lii ñeel ma min haadihil anshaabi ci lay ñax yu tooy tuma anaamu topp danaa nelaw xalilan tuuti xabla an tasi la ci njëkk muy agsi ilee jëm ci man ñoom ñaar ñi war a dàqee dañoo daldi taxaw ca place boobee nga xam ne ca lañu ràññeel ne fa lañu war a départ naka ñu départ rek bi bonaat doxee lu tolloog juróom meetar fekk na lëg moom rawe ko ay téeméeri téeméeri meetar bi la geesoo nag seenu luy bokk ci bonaat moo wër ne moom rawe na ko lu jaaduwut dafa gësam bopp ne ah xamoon naa ko saa waa ji dafa dof rek waaye tey mu xam man day mën na maa taxaw ci béréb bu naat bii xéewlu fi lu ma neex ci xeeti ñax yu tooy yu neex yii tëdd fi nelaw boole ci su ko defee nag balaa agsi rek ma daal di mën a fëxaat ciitu ko ca fan war a taxawee ji wa baynama hiya ba nga xamee ne moom kazalika naka noonee la kaanat nekkoon na asulax faatu bonaat ba tu jiddu di taral asayra dox ba duuna malalin ci lu dul yokkat aw taabin wala coona xataa qaarabat ba mu jegeeg an tasila mu àgg ilal hadafi jëm ci teerukaay ba inda dalika fa loolee istayxasat yeewu na zahraaw zahraaw te muy lëg min nawmiha ca nelawam ya wa nazarat te mu xool ila sulax faati jëm ca bonaat ba faraat xaa te mu gis ko takkaadu muy xaw tasilu di àgg ilal hadafi jëm ca teerukaay ba wan talaxat te mu départ que sëx mi mel ni ak fett tawaddu di sopp asabqa raw ga lakin na juhoo daxaa waaye ay coonaam dahabat dem nañu addaraja riyaahi mbir mu ñuy ay neena ki caaxaan adraaj arriyaax bu la neexee firee ko yee ñu taxañ ngelaw yi naawaale ko waaye daal maxnaam rek mbir mu ñuy ay neen coono yépp daal neen suñu nee nangam rek zahaba adraja riyaax mooy dem na cig neen rek wala mu tan faxaa te jëriñu ko surxatuhaa gaawam nga wa mahaaratuhaa ak ñawam nga mooy musteem nga li annaha ngir naka moom lam tan taliq déparut fil waqti ci waxtu wa almunaasibi way aji yell lëg ba mu nekkee di nelaw noonee ci gannaaw ba mu lekkee ba xolum sedd ne woon day nelaw ba ganaat di ba agsi mu daal di fëx jiitu ko amu ci lu muy rek mu yow seen bonaat mu ko bëgg a njëkk ca garab googee ñu waxoon ne ku fa njëkk àgg yaaraw mu daal di fëx la mën nag fa séenee jiitu bonaat waaye fekk na bonaat moom booba jege na lool garab ga nga xam ne li muy gaaw gaaw moom lëg mel na fett goo tiire mu dem taxul rek mu mën a jiitu bonaat bonaat ko jiitu ca fañ waxoon daldi raw li ko waral nag mooy daa jàppoon ak mën a dawam rek defe ne moom lu yàgg-yàgg rek moom mooy gañe loolu nag mën naa sooxe ay mbir maanaam defe ne mbir jàkku nga ko ba lu yàgg-yàgg yaa yóbbu ngañaay la tax na nga xaw caa yeefus mbaa nga jóge ci ci waxtu woo xam ne bokkut ak waxtu nga ci war a jóge tax rek sa yaakaar tas ca moo tax nag ñu daaneel xissa bi xazaari moytu leen ay yatuha tullaabu yéen étudiants yu góor yi wat taalibaatu ak étudiante yi mooy yu jigéen yi en tant tamidoo ngeen di sukkandiku ala quwwatikum ci seen kattan wa zakaikum ak seenu ñaw wa tuhmiloo te ngeen di négliger ak darsa njàng ma mbaa leçon ba kay laa tarsuboo ngir ngeen bañ a diik ngeen bañ a ñàkk maanaam ñàkk at mi fil imtihaanaati ci examen ya xazaari watandikool ñu tegee ko faxaali dañ koy jëfandikoo lamar duñ ko soppi nag ñu ci waxanteeg kenn nag ñaar ak jigéen ak mbooloog yépp ñoo ci yem moo tax rek mu wax xazaari ba noppi teg ci ayatu xat tullaabu yéen ñiy jàng bu ngeen déggee xisa bi war cee amee njariñ te loolu mooy ngeen xam ne kat lu ci kenn neex neexum xel bu mu sàgg ne am njàngam ne day bàyyi rek ba vacances bi jege si ma daal di gaaw dabu la ma wees woon lépp lépp loolu day ku ko ci def suwatuwut li dal lëg dal ko lu ngeen neex ne xel da ngeen farlu ci njàng mi te leen lu ne ngeen di ko jàng ci waxtu ngeen ko war a jàng bañ di ko bàyyi rek naa damay bàyyi ba vacances bi jege si ak yu demee noonu arrixalaatu ay tournée arrixlatu mooy ab tournée maanaam ab tukki da koy jam xuma annas arrixalaat tanzimu rixalaati organiser xeeti tournée yi tu nazimu dana organiser idaaratul madrasati direction bu école bi wala njiiteg école bi rihlaatin ay tournée saqaafiyatin yi ko jóg culture taquumu dana taxaw jamiyatu tanshiiti siyaaxati association bi tudde seen bopp tanshiitu siyaaxa maanaam sawarloo tourisme wal istiyaafi ak vacances bi tanzimi rihlaatin ci organiser ay tournée il amakini jëm ca béréb ya al atariyat yi ko jóg aada ak cosaan tukusiru dana bari litam al firaxu équipe ya al kashfiyat yi ko jóg esku wala yi ko jóg éclaireur min ar rihlaati ci ay tournée daa njëkk wax nit ñi faral di organiser ay tukki ay tournée mu ne ñi jiite école bi daañu faral di organiser ay tukki yoo xam ne tukki yi culturel lay doon maanaam tukki yi xam-xam ak dooli ak yeewute ak gën a xam lu bokk ci aada ak cosaan lay doon am na association bu ñu tuddee jamiyatu tanshiti siyaahati wal istiyaaf yëngatoom jëm ci lépp luy soqali tourisme ak vacances association boobu dina faral di organiser ay tukki yoo xam ne da koy jëmale ci béréb yi nga xam ne dañ koy fonk ci wàllu aada ak cosaan lañ doon woon ci sunuy maam ak sunuy baay ak sunuy maamaat jëm ci kaw ñi ko fay dajale di ko fa fekk di ko nemmiku di ci dolli ko xam akuk yeewute la nga jàngoon ci at tilaawa itam daaju ci mbirum alkashfiya ñu waxoon ne ña cay bokk dañuy entraîné wu ni nga xam ne moom la ab soldaar di entraîné woo tey dañ leen cay jàngal ay jikko yu rafet rafet ñoom ñi cay bokk équipe yooyu daañu faral di organiser ñoom it ay tournée al istiadaadu waaj li rihlati ngir tournée ba laylatal qiyaami guddik taxaw ga bi rihlati ca tournée ba adhabu damay dem ila suuqi jëm ca marché ba abataaxu dana jënd lawaasima rihlati wartee fi tukki ba min taamin ci aw ñam wa faakihatin ak furu wi wa fi léegi ca guddi ga wa xaddiru dana préparé ak taxaama ñam wa wa uhayyi'uhu te ma koy waajal mooy te ma koy def fii awaniyatin ci ay ndab muhkamati dabti yi luñ xereñe ak takk urattibuha danaa leen rañsale fil mihfazati ca saag ba wala ci kartaabal ba alkashfiyati bi ko jóg esku wala bi ko jóg éclaireur abahu danaa teg adawaat yi samay jumtukaay taxta mutanaawal yed yi ci ron yootuk sama loxo bu ñu ne suba lan war a dem ci tournée bi ci guddi googu laay dem ca marché ba jënd mboole mi nga xam ne moom laay aajowoo ci tournée bi muy xeetu ñam muy xeetu furu wi ci guddi gi itam laay defar ñam wi ba mu jekk def ko ci ay ndab yeew ko yeew bu dëgër dëgër dal koy def nag ci sama saak bi nga xam ne moom laa yoraale ma def ko ci nag ba mu jekk mboolem jumtukaay yi ma yittewoo yépp itam ma defar leen ba mu jekk nga xam ne su ma ko soxlaa daal di koy mën a jël alxiyaamu jóg ga inda sabaaxi fa suba ga ahlumu ahlumu danaa gént tuulal layli diirub guddi ga bir rixlati ca tournée ba ara danaa gis mooy danaa gént nafsi sama bopp fi sayyaarati ma nekk ci biir oto ma xarifaaq yi ànd ak samay moroom aw araani wala may gént sama bopp baqiitu may des fil bayti ci kër ga baynama dahaba ca ba nga xameen dem na rifaaq yi samay moroom fa ahzanu te may jàq wa ata allamu te may metitlu indama astayxisu saa yu ma yewoo tazhabu dina dem ma xaawi fii samay tiitaange samay ragal an habu danaa jóg baakiran bi muy aji teele ko wala baakiran ci bu teel atawajjahu danaa jublu ilal makaani jëm ci place ba al muhaddadi ba di buñ limité fil waqti ci waxtu wa al muayyani wa di buñ ràññeel la ansa duma fàtte shay an dara min adawaati ci samay jumtukaay asilu danaa àgg qablal waqti ci njëkk waxtu wa al madrobi wa di buñu ràññeel aji tamihu danaa daje bi rifaax yi ak samay moroom suba gi nga xam ne ci leen war a dem guddi googu daanaka damay gént rek lu aju ci tukki bi nu war a xëy jëm ca danaa di gént sax ci biir guddi gi nekk ci oto maag samay moroom wala ma gént sama moroom yi dem bàyyi ma man rek ma des ci kër gi su ko defee nag may mettit loo ko naqarlu loolu lépp danaa ko di gént ci guddi googu waaye nag su ma yeewoo rek gis ne loolu lépp xeeti gént dong la woon duma gis dara lu may naqari mbaa lu may tiitloo su ko defee nag suba gi ñu war a dem ci tukki bi damay teel a yeewu teel a jóg daal di wuti place ba nga xam ne fal war a daje ngir départ fa dem ca tukki ba lu ma yàkkamti yàkkamti it danaa fexe ba duma fàtte dara ci samay bagage ak samay jumtukaay waaye faaw moom danaa fexe ba àgg ca place booba balaa waxtu waa jot waxtu wa ñu waxoon balaa jot danaa fexe ba àgg foofa daal di gis nag samay moroom fi asnaa rihlati ci biir tournée bi tasilu dana agsi as sayaaratu oto ba wa fiihaa te nekk na ci biiram al azaatidatu jàngalekat yi professeur yi nastaqbiluhum dana nu leen teeru bil xutaafi ci yuuxuy mbégte nam tat yi dana nu war as sayaaratu oto ba bi farahin ànd mbégte azimin muy aji rëy atabaadalu danaa jokkalante al fukahaati ay kaf maxarifaaq yi ànd ak samay moroom nun sidu dana nu sadd al al aghaniya wayya al munawwaxata ya duñ xeetale maanaam ya bari ay xeet nata amalu dana nu seetantal fil manaziri ci xoolukaay yi al xallaabati ya di xëccaakani xol ya di xëcckati xol xalaba war na lay firi waaye dañ ciy jublu luy xëcc xol mel ni lu ko war ba ñoddi ko laa nusriju dunu xatal muallimiina sunuy jàngalekat warifaa xanaa ak sunuy moroom nan silu danan wàcc mina sayyaarati bàyyi ko ci oto ba indal yanaa biyi fa fontaine ya naakulu danan lekk naakulu bi shahiyatin ànd ak appétit appétit mooy bëgg lool la ngay lekk mu neex ci yow nga xir ca zaidatin guddi aji ëpp wala guddi aji dolli ko nashrab dana naan alma ndox ma al mubarrada ma di muñ seral bi zalji ci galaas nasil dana àgg ilal amaakini jëm ci béréb ya al atariyati yay ko jóg aadaak cosaan nastamion danañ déglu ila sharahi asatidatina jëm ci leeralu sunuy jàngalekat nastafiid danañ jariñu katiran lu bare bari mbaa lool day waxtaan nag bu ñu nekkee ci biir tukki bii di dem mu ne buñ dajee fan war a daje maag saay moroom oto bi ñu yóbbu day daal di ñëw fekk na sunu jàngalekat yi professeurs yi ña nga ca biir nu daal leen di teeru yuuxu yuuxu yi bëgg ci ñoom rek daal di dugg ci oto bi ànd ak mbégte lool ma tàmbalee kafanteeg samay moroom nu bokk itam di wayantoo ay xeeti way yoo xam ne yu wuute la yu bari ay façon la bu ndee dem itam di gis fi sunu bët di xool muy béréb yu rafet rafet yu mën a xëcc xol duñu xatal nag sunuy maître mbaa sunuy moroom maanaam duñu def loo xam ne day xatal sunu jàngalekat yi mbaa sunu moroom yi loolu ñu def dañ ko def rek ci kaw teggiin ak lu yem rek bañ a ëppal buñ àggee ci fontaine yi fi ndox yi balle dañuy wàcce ca oto ba tàmbali lekk nag lekk gu neex ci nun goo xam ne dañu ciy xir lool di naan it ndox mu sedd moo xam nañ caa def glace ba mu sedd bu nu àggee nag ca béréb yi nga xam ne moom taxaw na jóg muy béréb yi aada yeeg cosaan yi sunu jàngalekat yi ñoo nuy leeralal mbir ya fa nekk ko defee daanu ca xame xam-xam bu bare bari jariñu ca njariñ lu bare bari ashooru xindama awodu saa yu may dellu si masa an ci ngoon ata àllamu dana metitlu akoon dana nekk masruuran di ko ñu bégal di ko ñu kontaanal xinda sabaax yi fa suba ga suba yi su may dem damay bég lool mooy bu ndeenem ci tournée bi su ngoonee ban yi wàññi ko nag moom di ñibbisi damay am mettit ndax tournée boobu di jeex afraxu dana bég kasiran lool xindama tasiiru saa yoo xam ne mi ngi dox as sayaaratu oto ba yabuluxu dana jot soróor yi sama bégte muntahahu ab yamukaayam fi asnaai rihlati ci biir tournée bi sunu duggee ci oto bi ba oto bi tàmbalee dox rek damay bëgg lool waaye buñ demee nag ba ci biir tournée bi nag foofu laay gën a bége sama mbégte àgg ca dayo ba ar rihlaatu xeeti tournée yooyu daal mu fii datun aji am njariñ lañu jiddan lool xeeti tukki yu mel noonu daal lu ama am njariñ la mu ñëw ci at taw siyon xaa yëgal ne anaman za maay kii maxa jam xaratin ànd ak mbooloo min rifraq yi ci samay moroom najjitaasu dana nu jéggi waa di naharil kalbi mbaa nga ne waadiya naharil kalbi xuru naharil kalbu muttajihiina mbir mu ngi way jublu ila maharati jahita jëm ci xuntim jahita haadihil maharatu mile xunti allati mi nga xam ne tohaddu def na ko konte bi xaqin ci dëgg loxusan mu di aw cax minal alxaasi ca cax ya al géographiyet yi ko jóg géographe fii bilaadinaa ci sunu dëkk yi mu ne maa ngi nii ànd ak am mbooloo ci sama moroom yi noo ngi jéggi xuru naharil kalb jëm nag xuntim janyitaa xunti moomu nag dafa mel ne bariwul ñu ko xam daanaka manees nay caxee daal di laajte jaxitaa ana fu mu toll ci sunu biir dëkki liban yi alxaq dëgg doomu aqul lay wax inna naa naka nun nasiiru danan dox fii waadin ci aw xur min awdiyatil jannati ci xuri àjjana aljibaalu doj ya tuxiitu danañu wër binaa ci nun watam baxisu tey bàyyi ko mina shujayraati ci garab yu ndaw ya albarriyat yi ko jug jéeri rawaixu ay xet xetriyatun yi ko jug gët maanaam xet yu neex a neex mel ne xeti lat ko lañ wasuhu bu te xiin ya tata saaraxu danañu njëkkante fil fadaa ci jaww ji fata suddu te ñu sakk faw xatal waadi buntu xurwa wa tonti te ñuy jox qudratal jibaali nëtëxug doj ya wala wertug doj ya alwaanan ay couleur xaatimatan yu foncé maanaam nag xaatim buñ ko delloo ci couleur daañu ko wax noir jubli ci couleur bu noir daañu ko wax foncé ki buñ ne aswadu xaatim mooy noir foncé buñ ne ahmaru xaatim mooy rouge foncé tasiduha yooyu danañu ko yokk jamaalan ab taar wa naxaru te dex ga naxarul kalbi te naxarul kalbi moo ma tax di wax yata dafaqu dana jiñu filwaadi ci xurwa bi miyaahihi ca ndoxam ya al xasirati aji bari fa yursilu te muy boyal an xaaman ay misik sihriyatan yu ko jóg njabar maanaam yu mel day jabare totribu yooyu danañu sigreloo danañu maariloo zair yi way siyaareem watt yooru te njanaaw ya tan taqilu danañu déplacé fi haadal waadi ci wilew xur min shujayratin bàyyi ko ci as ngarab su ndaw ila shujayratin jëm ci as ngarab su ndaw wa tatabaadalu dañuy jokkalante alxatafa ñëwante wal xanaana ak yërmande faka annaha daanaka ñoom daal tanzimu dañuy way xasaidaha seeni xasiida wa tursilu dañuy boyal alxaanaha seeni misik xala xiisaarati nahri ci getaaru dex ga wa hamsaati nasimi ak déeyi gelawu nooy wa xamsu bi firi déey déey rek ni nga ko xamee nit nga wax kenn ci noppam ndànk loolu moo tudd déey xamasa déey na lay firi mu ne dëgg rek lay wax daa mel ni daal noo ngi nekk ci aw xur ci xur yi àjjana li tax ma wax ko mooy bu ma xoolee ni nga xam ni moom lanu doj yi wëre ci wet gu ne ak xet gu neex gi nga xam ne mooy bàyyi ko fu ne ci garab yu ndaw yi xet yi neex lool mel ni xet yi lat ko lañ ak ni nga xam ne moom la xiin yi xiine ci asamaan di njëkkante mel ne ñoom xiin yi dañuy sakk buntu xur wi ak ni nga xam ne moom la xiin yi di doolee rafetaayu doj yi ay couleur yoo xam ne day foncé nga xam ne couleur yooyu xiin yee waral bu àndeek ni doj yi meloon day gën a rafet rafetaay doj ya day gën a yéemu gën a rafet lool lool mu ne itam naxarul kal bi boo ko dee seet ni muy sottikoo ci biir xur wi tey sotti ay ndox yu baree bari na ndox may sottikoo day mel ne ay misig la yoo xam daanaka boo ko déggee day mel ne dalaa njabar neex ci yow lool ñi koy dégg ñëpp ci ñëw foofu dañuy maare mel ne duñ ko tayati boo seetloo itam picc yi ni ñuy déplacé ci biir xur yi bàyyi ko ci ngarab see jàll ci seen ngarab ak ni ñuy jokkalantee ci seen biir ñëwanteeg yërmande ak ni ñuy sabe day mel ni daal ñoom picc yooyu dañoo woy ay xasiida di def ay musique yoo xam ne dañ koy déggarli ak gitaaru dex gi ak ni nga xam ne moom la gelawu nooy wi di uppee ndànk-ndànk yépp daal nee na boo ko boolee day mel ne ca dëgg-dëgg dañoo nekk ci aw xur ci xuri àjjana wataa baax naa continuer nanu sayranaa sunu dox xataa wasal naa ba nu àgg ilaa maxaarati jaanyitaa jëm ci xuntim jaanyitaa fajtas naa te nu jéggi baadal masaaliki lenn ci yoon ya alwairati yi aji naqaree dox mooy yi kekke wa waqaf naa te nu taxaw amaama saxratin ci kanam aw doj sàmma aw yi aji tëx doj wu dëgër këng rek tam bajisu moom dana balle miyaahul maxaarati ndoxi xuntima min taxtihaa ci ronam bi quwatin ànd ak doole rahibatin guy aji raglu wala guddi gu ñu ragal fatafooru te ñuy fuur faara fuur na watata daf faqu te ñi jiñu fawqal xasaa ci kaw doj ya kaw jàmbaraay ya bi surxatin ànd ko gaaw masruratan mbir mu ñu lañu bëggal bi xorooji haa ci seenu génn minal balaami bàyyikoo ci lëndëm ga ilaa wadaxi naxaari jëm ci leeru bëccëg bi nu jàll nag nee na ba àgg ci xuntim jaangitaa moomee nga xam ne ci lañ jëmoon aw nañ ci ay jaaruwaay yoo xam ne yu naqare dox la dem nag ba taxaw ci kanam awut xeer woo xam ne dafa dëgër këng nu gis nag ndox yi nga xam ne ñoo nekk foofu ci xuntima ñuy balle ca ron doj wu dëgër woowu ball gu am doole bu ndox mi génnee itam day fuur di jiñu ci kaw xeer yi ndox yooyu ndegam dañuy génne ci ron doj woowee day mel ne kon fa ñuy génne moom dafa lëndëmoon suñ génnee ci biti nag ak ni bëccëg bi leere day mel ne kon ku génne